asalaamaaleykum man la Baba Elite marketing pro li laay war a sóoli arrêter d'acheter bomb bombes à retardement ñëpp xam nañ Sénégal dafa métti mais ku dajale ba mën a am 5 millions 6 millions boo koy def si oto war ngaa mën a xool bu baax fi nga koy def parce que oto bi ngay jënd war na nekk oto boo am sécurité mais oto bi ngay jënd tamit war na nekk oto boo xam ne du la lor financièrement boo jën oto am na site internet yi gars yi di jëndee à la Corée du Sud parce que ki lay jaay. war na mën a nekk au même point yow muy jënd si information yi dem leen ci site internet yi gars yi di jëndee exact ngeen jëndee foofu pour bañ a lor seen bopp financièrement wala si côté sécurité ndax bu ñu la jaayee oto bi nga xam ne dañ ko jënd ci jënkiyaat bi mu nekkoon oto bu accidenté ki si nekkoon dafa loru ba ñu ne oto bi kenn mënatu koo dawal biir Corée du Sud pourquoi ñu war koo mën a dawal biir Sénégal yow miy jënd oto pour def ci sa njaboot oto bi nekkoon benn oto bu accidenté ñi ci nekkoon xamoo ndax dañoo faatu wala faatuwuñu bu ñu la ko jaayee nga dugal ci sa njaboot yaa ngi lor sa njaboot beneen côté bi mooy oto bi nga xam ne dafa dem ba moteur bi baaxatul ñu ne oto bi mënut a dawati fii buñ la ko jaayee prix bu yomb nga jënd ko pour war ko mën a dawalaat Sénégal mi ngi lay lor financièrement ku bëgg oto demal ci site internet yi gars yi di jëndee exact mooy yi coréen yi di jëndee yi tubaab yi di jëndee nga jëndee foofu di nga gën a am mën a am xel mu dal booy dawal oto bi dugal ci sa njaboot mais oto boobu tamit dina mën a woyofal sa poos ba xaalis bi nga amoon Sénégal du demal ci oto yi tax gis nañ ñu bëri ñu jëndee oto oto bi da leen di lor financièrement ñu ngi ci mécanicien bi ñu ngi ci tôlier bi ñu ngi garage oto bi lu ñu am jëndee ko essence loolu war na mën a ñàkk ku am xaalis bay jënd oto jëlal temps nga dem site internet yi nga xool bu baax vérifier def comparaison xool li ñu koy jaayee Sénégal xool li ñu koy jaayee yeneen réew yi boo demee ba def si ay recherche ba gis oto bi nga bëgg boo ñu ko waxee mën la ko jënal boo bëggee tamit nga xool procédure yi ñu koy jëndee par internet nga jëndal ko sa bopp wasalaam jaajëf gars yi maa ngi leen di souhaiter une bonne fête de Noël merci beaucoup jaajëf